ñu ngi leen fekk ci benn saal bu yaatu ñii di ay góor ak i jigéen yu toog farankulaay ci ay matelas yu ndaw seeni loxo tegu ci seen tànk bu ci nekk. ay bantu cuuraay di saxaar lii ñuy def nii nag lañuy ñuy woowe yoga sëriñ si di woy ci turu Ousmane Kane di professeur yoga fii ci institut international yoga moo ñu xamal lan mooy aar boobu. chance bu ñu am ci fii suñu gëstu yamul ci benn yoga am nañu yoga Inde mooy hatha yoga am nañu. le kung fu moy bu chinois yoga égyptien xamna ci Afrique la ko yoga égyptien bi dafa xaw a kung fu bi problème arthrose problème respiratoire problème concentration bo ci kung fu bi wuté yoga kung fu bi ngay dégg nga pour pour la mais bi mom la wax tey boko def day donc munoo def cours yoga te doo def purification mu ñoom ñu ànd. yoga ngir nga mën ko def dafa am ay technique wala sax ay posture ne ko tubaab di waxee yow war a jëfandikoo. technique yi ñu utilisé dafa bari dafay dépendre ci ku nekk problème bi nga am dañ koy jagleel technique boobu. yoga lu ko indi yëpp dëgg dëgg dëgg mooy le contrôle de la respiration la purification di ko te purification munoo ko am lu dul ci respiration. xam-xamu euh, respiration manam liñ nane inspirer manam nga jël ngelaw duggal ko sa yaram dank dank dank dank nga genné ko dank dank dank dank dank xam nga bakkan bi ñaari pax la benn pax bi nga fàtt ko di noyé benn bi nga jëlat benen bi nga awante yoy rek ne tay timit mu nga noyyi nga bloc sa respiration genné ko pof genné bu gaaw wala ngay noyé ci bakkan genné ci gémine yépp ci technique de purification nit ki mëno def yoga té bolum na ci boko défé dal li leen moy seen dina mu nekk aar bu am solo ci wàllum purification ay jàngat yu bëri ci àdduna wërngal képp wane nañ ne yoga dafa baax ci setal xelu nit ñi ak seen yaram Mariane Sall VOA Afrique Dakar.